ba adduna lu ci mën na ne ci loxoom ci kaw loxo bi fii lay nekk waaye du ne ci xolam xol yàlla moo ko moom yàlla rekk ci war a dëkk kenn waru ci dëkk noonu la jullit war a yare boppam dëkkal ci xolam boroomam am am yi nga xamante ni ab yóbbal la di sutura sa adduna na yem ci sa loxo bu ci dara aju ci sa xol mooy tax booy génn adduna mooy fa toy ndax su boobaa yàlla moom yi nga feesaloon dell sa xol moo lay teeru teral la yebal ay malaayika yërmaande yoo xamante bu ñu rocc soru day mel ni rek karaw bu dugg ci ak mooñ nga di ko rocc foofu benn bruit du fa am lu alal ja bari woon bari bari bari bari doo ci dara ndax bu duggutoon ci soxal waaye bu duggee ci soxal rek fitna dikk na coono dikk na kon nañuy wattandiku ak xir ndax gis ngeen la mu xañ aadama te bariwaan nit fii ci àdduna koo xamante ni lam am la ko ko xañ bëgg gën a bari léeg-léeg nga dem ci sëriñ koo xam ne damay dem ci sëriñ mu soppil ma xaalis yóbbu fa ñaari million bëgg caa am juróom yeneen juróom-ñetti million ñaari million am yeneen fes nag far te duutu ko xam fu mu koy jëleeti xëram boobu yow yaa ngi sa ñaari million yu la lew koy wax dëgg yàlla seetal lu mu tollool nga def ko ca waaye dem ci benn waay boo xam naan damay bëgg mu soppi ma xaalis kooku su ko mënoon du publicité wu du dem fenn du la woo di la laaj dara fu mu toll day am xaalis ci poosam te du kenn du ko yëg lu mu bëgg a faj faj ko ne kenn la jàpp njàmbaram waaye mu ko dal mooy xër rek dem wëkk keesu gañ ko dénk bu dee comptabilité la mu dem jël ci xaalis ba ne bu ma joxee juróom ñett kay juróom ñaar dong laa koy jox ma daal di ñëwaat jël ñaari teg fi ñaare yëpp ay dem su ko defee nag police topp lañu porte la plainte tëj la te ko sabal ngay wiccaxu bopp rek su ma yëgoon su ma yëgoon jële mel ni ay te lenn loo cee mën a tee dab dabaate duut am xel noonu rek la mel dana la yóbbu ci lool duutoo ko mën a dab dabaatal mukk te dana la soof lool nag soof yi noo dana dem dayam bokk na ci lim daan dénkaane mooy añaan ndax añaan ñaari doomi aadama yooyu yi reyante woon añaan rek mooy mooy li ko waral te muy fitna joo xamante ni ca la suuf tàmbalee nëx ba nëgëri ndax booba lii xew nga xamante nos nosin wii ñu nose booba nit ñu bëreegul xawaa day seex seex bu góor lay am ak bu jigéen bu ñeneen ñaar juddoo di bu góor ak bu jigéen ñu jël bi njëkk seex bu góor bee ak bu jigéen bii mujjee juddu bee njëkkoon a ak bii mujjee judd maye leen kii moom seexam bii mu àndal di góor di ko di jigéen di ko rafet lool kenn ak seex ba mu àndal ñu war ko ko may moom mii jël kii jox ko moroomum góoram mee mu añaane ko tax mu rey ko ne ne du ko denc moom fu mujj it bakkanam rek bo xolé xir mom ñu la wax ba lañuy ñew ci tomb boobu ñett ñi nga xamanteni ni dañoo demoon ba ci all bi waxtaan nañ ko ba way xana fat fàttali rek ba tay ñu far fa mbusum xaalis mo xamanteni ni bu bari la def masalan tay bo do wax dal am milliard rek nga xamanteni ñom ñoom ñett ñëpp suñu yeenante won jamm te bëggante te yalla rek tax man nañ ca bokk jariñu ba bañuy faatu fekk xiif nañ ñu ne kon kii kat léegi na dem ca dëkk ba jëndal lu fa aw ñam wuñ mën a lekk ndax xiif nañ ba koo ko demee ñaar ñi fi des toog ci taatu garab yi ñu ko xaar ñoom ñaar ñu ne wax dëgg yàlla daal milliard bi ñu séddali kooku ñun ñaar ku ne am juróomi téeméeri million moo gën a jàll waaye lim bu yées daal juróomi téeméeri million daal moom dana xat ci loolu nañ def loo xamante daal bu ñu ko defee bu ci bu kee ñëwee nañ ko daal di rey bu buñ ko rayee nun ñaar bi seddoo milliard bi ku ne am juróomi téeméeri million moo gën a sakkan kee tamit ne wax dëgg yàlla milliard bi daal dara di ci toj di jëm ci ñaari ñee daal moom wax dëgg yàlla bu rafet jëndal leen aw ñam lekk ba suur moom def ci ñam yu posan daal di ñëw kenn ko ci ne gis nga yéene ju ñaaw ñoom ñëpp lay daal ba ñëwee ñoom laataa ñoo def dara rek songu nañ ko ñoom ñaari rey ko na suñu waa ji de moom ndeysaan waat na milliard bi rekk du ci mos dara lekk ñoom it ñoom ba seen biir fees ñoom ñaar ñoom ñaan ñëpp ñu bokk faatu milliard ba ne fa adduna li fi ne mënuñu ko jeexal dañoo yéenantewul jàmm rek waaye buñ bëggantee te yéenante jàmm liñ bëgg lépp lépp lépp lépp ma ngi fi te mën nañ ko am dara nag wërlu ko lu may ñàkk yéenante jàmm ak ñàkk bëggante ak ñàkk wóolante ak ñàkk soppante kon xër loolu rek lay jural doomu aadama nit day doylu adduna lu doy dikk fi doylu moo fi ne loolu yonente bi jàngale ni doomu aadama moom suuf rek moo mën a fees biir wax ni ko kuy bi jaaw dana bi jaawaale ñaar xir ak guddi mébét su ma amoon nangam mag moo gis fi ne mu màggat ba bi jaaw yi ma bu ñu ko yarut dëgg ma nga fees dëll ki mébét gis nga ñaar ñooñu foofu lañ mujj añaanante góor yi ñoom ñaar ñoo ñuy def fii mu ne da ngay gis fii ci àdduna nit koo xam ne yàlla dafa ko jox daraja nga ne lu tax mu am ko moo xam darajay wërsëg la moo xam darajay teg ko ci kanamu aw nit mu leen di gën leen di jubal nit ñi déggal ko moo xam darajay taar la moo xam darajay alal la lu mu ca man di doon rek nga ne lu tax yàlla moo ko jox amul lu tax kay yàllaa ko namm ci moom muy coobareem mu def ko ko yow ab jaam rekk nga loo ce naan lu tax am da bëgg a tënk ab am am ci benn béréb am danga bëgg a tënk ab taar ci benn béréb am da bëgg a tënk xam-xam ci benn béréb am da bëgg a tënk ngëneel yàlla ci benn béréb yooyu yëpp day am dangay gis ku yàlla ubbi def ci moom ngëneelam nga bëgg koo xeet ne ah ngëneel li day wër te jaar fee fee la war a de lu tax fa nga naan fa la war a ne njëkkiwu fa woon am na feneen fu mu njëkki woon di dox ba yegg si foofa day jàll rek ndax innal fadla bi yadillah yu'tihi man yasha ngëneel ci loxol yàlla nekk ko soob rek la koy jox ngëneelal am am ngëneelal xam-xam ngëneelal ab taar nga gis ki añaan da koy def da koy def ci biir xolam te di la ëpp mel ni lu lay ëpp nga xayante ni loo def wala loo wax du yakamtu lu may lu mu yàqe sa der rek nga xamanteni ni nit ki bu añaanee dana ko fas ci xolam bu añan nak bu yagge ci xol rek ci làmmiñ la jëm nek la nga dit kuy wax kuy kuy japp ci xol rek ah man dañ ci ko lii lu tax mu am ko rek wala diw dal xol lu tax mu mel ni rek di waxtaan ci xel waye du am mujju lu bu ci yagge ba yagge ci rek bu koy dugg ci làmmiñam du ko tay su nga defé koku man dem di yak de nit ki di wax ci nit ki ab safaan loolu mu di ko wax ci nit ki te lam ci de dem bay sos su boobaa nit ki añaan googee daf ko yóbbi rëy ndax lu tax rek nit ki su ko yàlla defalee xewal nga ne lu tax rek rëy dugg na wax lu du dëgg ngir yàq ko yàq ko da da nga koy def rambaat da nga koy def lépp boo xoolee jikko yi ñaaw yépp day bëgg a duggaat ci biir añaan añaan nag noppaliwut foo fekk nit ko añaan ci njàqare lay dëkk mbugulum aji añaan moom yàlla di ko xaare ëllëg ndax ñaare ki mu jox loolu ngëneel sa añaan gii du tax mu dindi ko su ko defee foo toll ci fitna ngay dëkk ndax day sol mbub mu yamamaay rek wala dàll wu yamamaay rek nga naan diw daal xool dàll mu xoole nga di ko ko añaane bëgg loola deñ mu xëy yàlla joxaat ko mel mbub mu dàq moo fop joxaat ko yenn dàll yu dàq yooyu fop nga ne man de xaw ma si lii fu mu ko jëlee mu am kër wala mu am oto nga naan man de nga di ko ko añaane mu joxaat ko lu gën a kawe loola bu yàggee nag la ngay def maanaam boo yeexee kii de li am boo yeexee day da koo sàcc boo yeexee daa lu muy jëfandikoo lu ko koy indi boo yeexee nangam lu ñaaw lu ne nga di bëgg koo teg ci der kooka te tegoo ko fenn lu may ci añaan ak noonu xéwalu suñu borom subhanahu wa taala ci jaamam loolu lépp jullit ñi war koo bàyyi xel muy jikko yoo xam lu mat a daw la lu mat a ba xel la bokk na ci ki fenc guddi gi li mu daan dénkaane jullit bi wóor di xóotal diine foo toll di xóotal diine yenn xeeti xóotali ni di taral ak xóotal déedéet daf daan wax ni sunu boroom moom dafa def lépp muy lu jàpp ni jëlal la nga ca àttan ndax suñu borom dafa bëgg jëf ju baax ju sax donte lu néew li am solo rek mooy seetal li nga àttan nga jël ko te fexe mu sax loolu la loolu mooy li nga xamante ni moom la suñu borom am soxla léegi boo seetloo am nga ñoo bo ne ñu ne gàmm bi daala yu bare bare bare bare bare rek so waxee ñu bi daala waaw ndax tay biñ tambalé waxtaan ak léegi diggi nañ fi lo xamanteni li lu yalla gërëmul la liñ fi dégg lépp lu ñuy dolli rek la ci diine xam nga yonente bi dafa am lool yalla daf nu ci boyal maanaam andiwu ca ab lim ci bërepp andi wu ci jamono jullit ñi ñoy am seen farlu bokk di ko def fii nag boo xoolee gàmmu mi ngi mel ni conférence rek mën nga koy tuddee conférence di jàng alxuraan di jàng xasida di def salaat salaatu na bii di dénkante dëgg ak njub loolu sëñ bi ku ko génn ci diina lu ca des man de xaw ma ko ndax tey gis nga jamono dafay dox nit ki génn taral gi ak yu mel noonu soo ko bëggee def yow ci sa bopp sax da am coono ak jafe-jafe ndax mi ngi mel ni nga ne bi rek daawul dugg oto lu tax may dugg oto. fas la daan war wala gëléem ne léegi ñu ngi dugg ay avion di dugg ay wata di def leneen xëyti tabax yi xew xewutoon tey yi ñuy natte ay ay jumaak ba mu xiblu yooyu yëpp ay bu sol ak yooyu yëpp amutoon ay biddiw lañ ko daan natt wala yeneen dafa bari yooyu dafa amutoon te am léegi ndax jamono mooy doxe noonu kon nit ñi da ngay fexe ba nag lu ñu mën a def forme ba lu mën di tëdd rek da ngay xool ba xam lii luy delloo l'islam karam la wala lu koy delloo gannaaw la lu yóbbu ci l'islam ca karam la wala lu koy delloo gannaaw la bala nga naan nangam bi daal bi daa mooy masalam tey soo ko doon misaal ñu ni julli kat julli timis ñett raaka la nga dem def ko ñeent ta tay ko wala julli takusaan ñeent raaka la nga dem def ko juróom ta tay ko xeet yooyu nga xam yonent bi xam nañ ni lii nangam la ci daan def yow nga dem def lu ëpp loola wala lu yees loola ta tay xam nga alxuraan dafa wax ni tudd leen yàlla lu bari suba ak waxut lim kon ki bëgg naan lim sangam lim nga di ko def ci turu yàlla wala nga di ko def nangam loolu bi daal déedéet loolu su bu fekkonte ne suñu borom daf cee joxe ay lim joxe ci ay waxtu waaye joxewu ci lim joxewu ci waxtu tey nit ki julli julli naafila bu dee waxtu daga na naafila bu la neexee nga def ci téeméer ràkk man nga caa def sax junniy ràkk donte yonent bi dawu ko def waaye xam nga loolu suñu borom indiwu ci benn lim indiwu ca loo xamante ni tey wala suñu borom danaan lii nii la waaye da ca am yoo xam ne daf ñu caa boyal boyal gam ñu ca boyal nag waxtu ne nit ki mën nay am nattukaayam ci sharia ba loolu du ko génn mukk kon bari nañoo ni ñuy tarale diine ak nañ cay xóotale loolay gënut bokk na ci ki feeñ ci guddi gi lam daan dénkante ak jullit ñi bokk na ci suñ mbokki soxna yi mu ni bépp soxna su faatu te jëkkëram gërëm ko dana tàbbi waaye nag ngërëm la na dëppoo ngërëmal yàlla ndax léegi kat kilifteef yu bari ngërëm lañuy ñuy ëmbal ñenu yilif la ca ëpp ci seen bànneexu bakkan lay doon waaye nag ngërëm la na fekk topp na yàlla na mu ko ware te topp ko moom itam ni mu ko ware bu ko digalee mu def bu ko teree mu bàyyi mu muñal ko taxawu boroom këram ci këram bu fa nekkee ak bu fa nekkut di sellal la ko jox di ko yaxanalal di ko toppatoo bokk na ci ki feeñ ci guddi gi li mu doon jàngale bépp jullit boo xamante ni woddu na mbokkum jullitam mu rafle sunu boroom dana ko woddu ëllëg yowmal xiyaam ci yéere aljana ya kon nit ki am sa yéere nga gis sa mbokkum jullit moo xamante ni wóor na la ni moom tuumuranke na ay yére nga wadd ko ngir yàlla dana tax ëllëg yowmal am suñu borom subhaanahu wa taala wadd la ci yére aljana mooy kooku rek dana dugg aljana loolu lépp dugg ci tomb yi ñu doon waxtaane léegi ci njëlbeen boo xoolee suñu borom day mel ni jullit bi li muy def mu jëm ci mbokkum jullitam moo ko gën a ñor fuuf li muy def lu jëm ci moom boo seetloo tawat naa seet si wooma ji mu doon wax Sayyiduna Muusa naa leleloo ma mar naa màndaloo ma yooyu yépp nit a tax muy wax mu ne ko yow rabbul hisat na ma lay seetsee na ma lay màndale na ma lay wodde mu ne ko sa moroomum jaam xiif na boo ko joxoon mu lekk mel na ni man nga ko jox ma lekk sa moroomum jaam mar na boo ko joxoon mu naan mel na ni man nga jox ma naan sa moroomum jaam raf na na boo ko wodd mel na ni man nga wodd da seet loolu mu askane la ci boppam li koor di màgg màgg nga xamante ni koor rek la suñ suñu a wax ne ci loxoom boppam ci la koy fayee sax daraja jim jox suuturaal sa mbokkum jullit daraja jim jox jox aw ñam sa mbokkum jullit daraja jim jox wodd sa mbokkum jullit daraja jim jox dimbali sa mbokkum jullit jox daraja jooju koor boobu muy fayal boppam loolu lam ci jublu mooy nu bëggante jàppante suuturaalante ku ne la bëggal boppam bëggal ko moromam te yàlla rek a tax mu ni bépp julit boo xamante ni lele na mbokkum julitam mu xiif sunu borom ëllëg dana ko lele ci meññatum aljanna mooy ba tey rek li ma doon wax léegi kon ku bëgg a dugg aljana dara gënu cee gaaw di lele aw ñam te yàlla rek tax waaye mu ni julit boo xamante ni mbokkum julitam mar na mu ko ëllëg yoomal xiyam suñ borom dana ko màndal ci rahiq maqtum ci ndoxum aljana moom nga xam ne ndox mu neex la ba dem dara kon yooyu yépp boo seetloo li tax sunu borom fonk sa digganteeg sa mbokkum julit nga di ko rafetal di ko dimbali di ko suturaal di ko jàppale mu gën koo ñor julli kon nit ki lu mu mën a mën Lum mana mana wor lum mana mana bo setlo mën a yo seetloo aj màkka yoo xamante ni da nga gis ko wax daanak dana aji makka fuk yoon so waxe mu ni man la aji naa màkk yoon aji naa màkk yoon turum nit ñi xif turum nit ñi mat yow bi yeb makka rek amna fo foo man na fa bënnu tel be yeb makka ñaat nit la mëna jox ñu nek be yeb makka ñaat nit la mëna wordu kon bo defé benn farta ye ci dess yeb man nga ko sarax ci anam goko mëna defé man defe mana tel man nga tabax poste de sante man ngay woddu nit ñi man nga ko jënd ay toni ceeb ak toni pep jox ko julit ñi ca yalla rek tax mo gëna ñor fuuf lolo gëna a ñor yàlla bokk na ci ki feen ci guddigi lim doon jàng ni yooyu yépp rek gis suñu borom ni mu fonke doomu aadama ak ni mu ko bëggee ak fi mu ko teg ak ni mu ko tarale yooyu yépp dafay valeur yoo xamante njëkk lislaam di ñëw lu tumuranke la kenn ku ci nekk da ngaa sa bopp gis sa am-am doo dimbali kenn koo jekku def ko yooyu yëpp nag boo xoolee dafa mel ni jikko yooyu yëpp mu fi fekkoon dafa mel ni dafa dilsiwaat te nit ñi bawuñ ci xel te soxlawaat lool am njàngaleem di gën di leer bokk na ci lim doon jàngale bépp jullit boo xamante ni suñ borom teg na ko natt mu muñ ko ngir yàlla lu dul ni suñu borom booleem lu mu jëfoon wala mu waxoon ko wala mu yéenoon ko ci ab safaan suñu borom dana ko teggil yépp safaan yooyu yépp dana ko ko teggil ni nga xamante ni tey bu demoon ba àgg ci cooroor xobi garab yi noonu ñuy woowee di wadd noonu la suñu borom di waddale ay bakkaar yépp léegi la nga gis koo xamante day tawat di jàmbat rek man kay sama tawat jiixoo fu ma jëm man kay li may dal sama fii day mett sama lii sama laa wala nga amon suñ borom eh, def jamono xawa xat ci yow fu ne nga difa fa te xamoo li tax mu xatal loola ci yow wala jafañ-jafañ yooyu dara wërulu ko lu may bëgg laa jéggal say ñaawteef rek kon loolu julit bi war na xam ne lépp lu ko dal muy lu metti am lu tax suñ borom teg ko boo ci masaalik sëriñ bi dafay wax ne yi ñoom bu ñu masaa am ñiin fukki fanta suñ borom nattu leen ci dañuy tiit dellu ci yàlla li ngay xamee ne suñu borom fàttewu leen daal mooy natt yi mu leen di teg waaw nun nag nga xam dañ daal ko ci suñu borom nattuwut sax da ngay ñaan yàlla mu nattu la ndax xam li ci nattu ni muy yëkkatee say darga ak ni mu lay farale ay aw ñaawteef nga xamante ni bu ñu amee ñeent fukki fan yoo xamante ni dara dalu leen ci seen jëmm ak seen alal ak seen njaboot dañuy tiit di dellu ci yàlla defe ni dañoo def yàlla lu rëy ba tax nattu leen. nun nag nu jàmm ji gën a bare ñu gën a bew nu jàmm ji gën a bare ñu fàtte yàlla nu jàmm ji gën a bare ñu gën a bare ak mooy rek mu ni amul benn jullit boo xamante ni suñu borom subhanahu wa taala dana ko teg am nattu ci yaramam ci lu dut suñu borom dana digal ay malaayika yoo xamante ni day wax ni sama jaam bii day guddi gu ne ak bëccëg gu ne dee leen ko bindal aw yiw li fekk nattu bi mi ngi ci kaw mu di ko muñ ngi sama jëmm bokk na ci li ñaan suñu borom moy mujj gu rafet bokk na ci li yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax bepp julit bu faatu bisu aljuma wala guddi aljuma suñu borom dana ko fegal fitnay bammel te fitnay bammel nekk lu tar nekk lu metti guddi gi nit di njëkk a fanaan ci bammel amna borom xam-xam bo xani dara melut ni mom dara dara dara melut ni mom te moo ne kenn ku nekk ci ñun yàgg yàgg dana ca jaare yéex ak gaaw rek moo fi nekk waaye ñun ñii toog amul ku ci ku ci jaar ci bàmmeel te mooy suñu wàccuwaay bu njëkk nit nag dafa man a fàtte lool te soxla fàttali ndax moo ne ñun ñii dey fii ne ku ci xëy sangu ba set wicc wala bëccëg nga sangu ba set wicc wala guddi nga sangu ba set wicc sang sa yaram nam la neexe jàppal ne bis des na la sang te doo sang sa bopp nit kuy laal ndox rek loolu la sa xel war a njëkk a dal bis la sa xel loolu la sa xel war a njëkk a daj bis biñ lay sang te doo mën a sang sa bopp te doo taamu ndox mañ lay sange te doo taamu it fañ lay sange loolu kuy laal ndox rek sa xel war naa daj loolu boy sul yére ngay ko bis biñ lay wodde yére yoo xamante ni sax dawoo ko faral di sol te bis boobu du jaas mukk te faw nga yegg ca dara munta teet nga yegg ca ndax damay wax ni kuy wax ba gis sa bopp ci ëdduna ji yaa ngi ci coono yaa ngi ci fitna yaa ngi ci naqar ndax kër googu noonu la ko yàlla bind ku fi bëgg nooflaay rek moo sonn waaye adduna du kërug nooflaay nooflaay yi tëxul suñu borom andiwuñu fi fi andinu fi jaamu ko dong moo tax mu andiwuñu fi leneen leneen dooleeku ci ku fi bëgg nooflaay nag yaa teg sa bopp coono ndax du kërug nooflaay ndax lu nit am lu mu bari bari bari rek coonaa nga ca biir naqar nga ca biir jafe-jafe nga ca biir kon guddi gii nu nekk war nañoo xam dayoo war nañoo xam dara jàpp ki ci feeñ it ñu xam li taxoon suñu borom feeñal ko ci mooy xeet li jaam ñi na mu leen di xeetle it aw yoon la wu indi muy yoonu njub di yoonu dëgg di yoonu siraatal mustaqima lay tax ñu mën a xeetle ko it mooy ñu jaar ca boo xoolee li ñu fi waxtaane lépp la ci ëpp solo ci suñu diggante la waaye sunu borom moom nun bu suñu diggante jagee rek sunu borom xolom sedd na boo demee ci téere boobu sëriñ bi def te di ci indi lenn ñu barkeelu ci mu ni guddi gi mooy guddi gi yonente bi sallallahu alayhi wasallam feeñe mooy guddi far bépp sikk nit jàpp ci lu wér jàpp ci lu wóor jàpp ci loo xamante ni wóor na ni mooy tax mu texe mooy tax mu mucc mooy tax mu am ngërëmal yàlla ci guddi gi la ko suñ borom defe muy ki ko indi muy yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci guddi gi ci la feeñe mooy guddi far ab coono coono mooy lan di yëngu ci lu dul yàlla coono nga ciy jële te doo ci jële bànneex doo ci jële ngërëmal yàlla te boo fa jógee coono ba raw ca jàpp ci lislaam nag lu la ca man ni fekk luy nuru coono rek lu coono ndax dañoo wax ni kat wépp yiw woo xamante ni yiw woowee wépp bànneex wala bépp xéewal goo xamante day ran bu musiba topp ca loolu du xéewal mukk waaye bépp coono bépp jafañ-jafañ boo xam day randu bànneex topp ca muy aljana loola du coono kon lislaam amul benn coono ci ki koy jëf waaye bis la boo xamante ni képp koo xam ne danga daan bokkaale yàlla ak kenn wala lenn ñaawteef woowee ak bàkkaar boobee ci la la yàlla laabale ba nga set picc ndax yonent bi moo ñëw wane ki war a jaamu xam ni bant bii su ko jaamu doj ji ko jaamu xërëm ji ko jaamu foofu nag ay sew-sew yu doy waar ñu ngi fi léegi te nit ñi boo seetloo danañ àgg ci léegi bu ñu demee ci jirib yu sell yi fu ku baax tëdd wala yu mel ne da ngay gis ñuy laal ci bunt yéeg laal ci weñ yeeg fa la ba ci oto yi nit ñi gaa yi baax yi sax léeg-léeg nga gis oto romb nit raay taf nit déedéet loolu mooy biddaa nag li ñu wax biddaa dëgg mooy loolu sëñ Tuubaa boo xoolee téere bi ma tiim nii moom mooy majmo bi nga xam ne moom la sëriñ abdullah dajale woon lu bare ngi ci biir téere bi mag moo fi dégg ñu di ko wax ci yoonu murit te muy ku siiw te mbooloo aji woon ci moom sëriñ bi bind na ko leetar lu mu mas def lu mu lu mu gàtt gàtt gàtt sëriñ bi bind na ko leetar tegaat ko ci yoon moo xam mu jëfe ko moo xam mu ñàkk ko jëf kon yooyu yëpp war nañ ci jàngalaat nit ñi xam ne yàlla ñaan léeg-léeg nga dégg ñu ni diw sangam yalla na ma may bi dit yalla la ñuy ñaan kenn du ñaan nit yalla mo lay ñaan serigne bi fi mi ngi wax ci biir ci biir téré bi fekk am ko ko doon laaj na ko ndax makka nga difa jël ay xéer ak ak yu mel non mu ne ko diir yoyu dafa bok ci bunti biddaa bunti jaamu xërëm lool daf ca bok man mas namaa dem fii ak kër gis toj yi xamante ni ci yi ci jumaa yi tuba jël bok koko jël ko tek ko ci biiru néegam fu mu xëyee di ca tàllañ loxo fu mu xëyee di ko raay fu mu xëyee di ca di loolu kenn sant la ko bëggal sëñ Tuubaa bëgg bu wér di ko liggéey liggéey bu wér lim digle nga di ko def lim tere nga bàyyi ko waaye xeer wii moo xeer yi ñooyal gis nga gis nga kaaba ak màkk gi moo xeer yii miiree kër gi ñooyam képp xam nga lu leen wutalee ndigal la fa yàlla joxe ca joxewu ko fii képp waaye ay xeer la yuñ tabax jógewut ci asamaan wàcc fii la jóge ci suuf ndigal li rekk leen wutale lolu serigne bi artu won nako dem so demé ci ci bu ku baax togal toogeen bu sel boy jang alcorane nga jang alcorane boy jang khassida nga jang khassida boy def salat ala nabi nga jang salat ala nabi ñaanal ko fa tudd ñaanal sa bop ci dara jang lolu les di def ndax boo seetloo yoy yëpp yu mata a lu mata ya, ndax nit ñi nak ñu naqaree wàññi lañ ñëpp ak mën yam ndax seen xam-xam bariwut dégg nañ ay xuraafaat ba seeni noppi fees dell boo boo leen bëggee wax dëgg sax dañ lay defum noonu wala ñu dëkkal la foo dëkkut ndax nit ñi jamono moo mel noonu nit ñi fu ñu wàcc aw yoon lay indi jafeñ-jafeñ duñ yëg ni wàcc nañ aw yoon fii ne gis nga yéefar yi doon xare yonente bi sallallahu alayhi wasallam ba àttan cee joxe seen bakkan dañoo jàpp ni xërëm yi mooy dëgg yonent bi leen di wàññi ne leen lii mooy yoon yi dañoo jàpp ni moom ma wàccu yoon waaye lii lañ fekkoon suñuy maam ak suñuy bàyyi na ci mënoo tax mënoo wax wax bañ ba ko loolu rek lañ daan wax inna wajadna abana ala umma waaye naa la asharihim la muqtadun loolu rek lañ daan wax tey jii tey nun ñii nun murit wala tijaan wala keneen ku mën a doon léewaara koo xamante ni xam nga njàngaleem ka nga topp dëgg dëgg xam di ko jëfe te jëm yàlla rek a tax moom kay da naan tey nit ñi lool wëlbati maanaam yée leen ci lu jafeñ ndax ni ñu gëmee aada ni ma ko waxee léegi ndax la ñuy wax man day sama baay fii la nekkoon sama maam fii diw la toppoon diw kii diw la toppoon kii diw la toppoon loolu rek lañu ñu bari waaye da nga war a xam dëgg dëgg dëgg dëgg li sëriñ bi doon jàngale nga fas yéene di ko jëfe koo gis mu dàq la gën na koo xam gën na koo mën a jëfe tamit ci ñi sëñ bi defaroon moom mu defar jikkoom defar meloom ba ku ko roy jariñoo nga fas yéene ànd ta baña xol nak fi ni sa bay ni nak nekkoon sa fenn ni ko fi déedéet li ñuy wut ci ab sëriñ moy ak defaru ku la munta defar kat bo fa nee da ngay solal sa bopp waye ak defaru la ñuy wut loolu na ko nit ñu bayyi xel defar nak ka ko man moy ko defaru ku wut ni man munta defar kenn loolu nit ñi lañ koy bayyi xel ndax yoy yep aada dañ ko dugal dugal dugal ba dem na dayo ba am na ci ñun baax benn illa rek duñ la ko waxal lu may fii ne tey boo bëggoon a sàkkum jub ci ku mel man mi nga xayante ni mënut a defar kenn gis koo xayante ni ku baax la ku mën a defar la di di ma ne bàyyi ma rek sama wax yow di diglu ma rek bul yàq saa waxtaan bi waaye ma ne bul yàq saa waxtaan bi loo xamante ne xajul waaye nag man ni nii nag man man nag nii laay waxee nag yaa xam li ngay wax waaye may xam naa li may wax nag yàlla la nëbb samay ayib dong man as njaam dong laa te bu leen ma fi taxawaan nag dégg nga ko soo jógee bëgg a dem ci keneen ku la sàkkoo ku ku ku ku baaxal ku mën a ku mën a jubal li muy njëkk xalaat mooy man day ñàkk naa sama wërsëg kii daal ni mu amewoon positif ci man ni mu amewoon yitte ci man ñàkk naa ko de toppi na benn waaye boo xam ne kenn xamut ko mu doon rek Do baye xel ni mukk ki ak ndax legi bar na ñu ni top ñoo xamanteni ni wax deug yalla ñom ci seen bop sax xamuñu ki ñi top nan la wara mel bay xam sax dañuy jubal nit ki dañ koy gindi seen yoon newut ci lool lañ séq xalaal te nit ñi ñi topé yit la leen gëna ñor gën leen a yitteel mom dal ñaar yi mo fi nek indi am indi am legi dañuy dem bu duggaat ci buur ak dag te dañ ko seetlu te ku bëgg ni buur ak dag nak nga bëgg dal ci sa kaw <laughs> te wallahi bar na ko xamanteni ku ñuy topp koo xam ne jëfi buur lay def ka koy topp jëfi dag lay def ndax toppe goo xamante ni xam-xam nekku fa jikko ju rafet nekku fa melawu rafet nekku fa dëgg nekku fa njub nekku fa kooku buur ak dag rek fa nekk leneen néew fa loolu nañ nañ koy bàyyi xel bu baax képp koo xam ne yaa ngi jóg bëgg a roy Serigne Touba xamal lim jàngale nga fas ko yenee jëfe te yàlla rek tax ndax loolu moo ñu bokk jariñ dëgg nag dafa metti néexut man mii koy wax maa gën a ñëpp waaye nag bëgg lu baax rek ma ci jóor leneen dooleeku ci tey ñaan yàlla bokk nu gindi te bokk nu dimbali ñun ñëpp kon guddi gi ci la suñu borom fare yooyu nga xamante ni dañu ko tegoon ci kaaba gi xeet wu ne am seen yàlla junuy jàmm gis nga yooyu yëpp tey boo ko xoolaatee ci biir réew mi doo ko doo ko misaale sax ndax réew mi lislaam a ngi fi juba ngi fi mbaax a ngi fi ci foo man di dem waaye nag da cee am ñoon ci seenu gisiin nañuy gisee kilifa yi diine yi léegi day mel ni daal kenn ku ci nekk am nga sa surq soo xam jàpp nga ni daal sa caay-caay boo man def ba mel ni man boo demee rek ñu daal ne eh kaay duggal boo liggéey ci aljana dañ naan ubbi rek duggal déer walaay bari na ñoom fii nag lool loolu la ñu am kenn ku ci nekk nag jàppe kilifa yi diine yi ay fas keenaan san fasa raw keenaan san fasa gën a suur keenaan san fasa boo dajee kee mu ne la yii li ñuy wut lépp a ngi ci kii da ngaa xamul rek nga demaat ca kee kee ne la yii yow yëgoo li ma yëg nga dem ca kee mu ne la yow li nga li ma mos nga musul rek soo ko mosoon xam kon loolu lépp dañ ko war a génne ci sunuy bopp ñun ñëpp nu maase jàpp ci buumu yàlla gi nga xamante ci la ñu jàpp loolu ñëpp mu di ak njub mu di siraatal mustaqima mooy soppante bëggante wóolante kenn ku ci nekk jàppi ne kilifa yi diine yi nekkoon ci réew mi kenn ku ci nekk njubug sunu boroom moom la doon woote woo nit ñi jëmale leen ci yàlla jëmalewu leen ci bakkan jëmalewu leen ci banneex jëmalewu leen ci adduna jëmalewu leen ci boppam ci yàlla leen doon jëmale foofu waaye man di féete nag teñ jëmale la ci yàlla te jëmale wuñ la ci bakkan jëmale wuñ ci bànneex jëmale wuñ la ci adduna jëmale wuñ leen ci seen bopp xamal ne yaa ngi ci ak njub ak foo mën a féete loolu nañ ko nangu waaye tey ñun ñi nga xamante ni ñu ci bari ñooy tuddewoo al ihsaan ñu gën koo xam ñu bari di ko tudde tasawuf wax dëgg yàlla lañ xamoon ci nitu tasawuf mooy koo xamante ni yitteem yépp yàlla rek la léegi noo gën a sàggan yi te duñ nangu nag duñ ko nangu bu keneen ndax bari na ñoo xam dañuy diingat sëriñ si te wax dëgg yàlla bari na ci loolu noo koy def man sax duma sëriñ ab dong dong laa waye dana bari ci nga ne ñi tuddé sëriñ ñokay def ndax nit sooy ronu ci keppaaram wax dëgg yalla war nga am looy jële ci mom lo xam da nga man ni li dé bi ma dalé and ak mom ak légui jëlé na ko ci mom ci jikko ci rafet ci bëgg yalla ci sopp ko ci wolu ko ci dal aduna ci jublu yalla waye bu ci yoy yépp amut kat lay daal di ak la sëriñ bu doon jangal kon dañuy melni dañuy dugg ci mel ni rek li fa fa yonent bi fekkoon aw nitam gaa yu baax yëpp it sëriñ bi tey bi mu ñëwee sëriñ su bari dañoo jàpp ni lu yees la indi li ma doon wax ci kolub añaan bi yàlla defee ci moom ngëneelam ñi ko nanguwut ñu ci bari nangu nañ ni kii yàlla moo def ci moom ngënee waaye am na ci ñooñ nanguwuñ ko woon ndax añaan rek lu ñu mënoon a def ba yàq diggam ak nit ñi ñu ngi ko def bobo boo magal màggal ji ni weesu li sababoon màggal gi boo xoolee sëriñ bi ay nit rek ko doon jaxase ak tubaab bi moom surtout woon ak dara ak bi ci woote jëmale ci yàlla woote ni jëmale leen ci yàlla nit ñi mar dëgg mar njub mar seen borom ndax gis nga yàlla leeram jëmm jum ko def nit ñi jubul ko te duñ ko sañ bañ ndax doomu aadama yàlla daf ko móole loo xamante dafa dafa ak dundam yàlla daf cee bokk fu mu koy yëgee nag faw mu di fa jublu loolu tax nañu bare bare bari loola ba ko yàlla defut ci ñoom ni ko nit ñi jubloo ak niñ ko bàyyee xel ak niñ ko bëggee ak niñ ko soppee tax na lu ñu mën ci yàq ñu di ko def loolu rek moo ko jotaleeg ñoom kon ñooñu boo ko xoolee dañoo noonu xéewalug sunu borom kon sëriñ bi wax na ni guddi gii képp koo xam ne màggal na ko teg ko ci sunna sunna mooy lan ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon jàngale nga yeesalaat ko ci ci ci guddi gi yeexaat ci nit ñi fat li leen ko ba ku jóg mën a mën caa jariñoo loolu danay wommat jëmaleenu aljanna yaquduna lil janna ku ne xam ne liñ fi waxtaane ci ay tomb bi jikko ja rafet suñu ko toppee ñun ñëpp mucc ñun ñëpp texe ñun ñëpp dem aljanna kon non lañ ko wara magalé ak it dolliku xewal biis diyaadul min na xam nga dolliku xew liñ fi waxtane lepp ci ñak xir liñ fi waxtane lepp ci ñak rëy liñ fi waxtane lepp ci suturalant liñ fi waxtane lepp ci jappalante ngir yalla señ bi suñ ko defoon xewali ci réew mi ñu ko xajal kenn ku ci nek am lu mu kon doli ku xewal gogi buñ koy wax du ca geeni da ngay dem fi di tibb wala nga di ko xayaale noonu déedéet moy nañu jikko yoonte bi jangale suñ ko jangale dundu ko réew mi day daal di naat adduna bi day daldi di naat waaye ci kan nag mooy ki sellal mooy déglu bu baax taataan bu baax te fas yéene jàpp te fas yéene jëfe boo delloo njariñ daal yaatu bari mu ni képp ku màggal guddi gii nga xamante ni ci la yonente bi sallallahu alayhi wasallam moom muy buntu njub feeña fu waay ma ne wute ak njub te wuti woo njub goo gi ci yonente bi salallahu alayhi wa sallama li suñ borom wax moo di loolee ma ca soxla mu ne képp ku ko def dis ko xisaab ëllëg yomal xiyaam kon na nga ko warmaal te nga màggal ko ndax lii ñu fi waxtaane lépp ku ci nekk da nga am benn xisaab ëllëg yomal xiyaam déedéet waaye mu ni ba tey képp ku màggal guddi gi yonente bi salallahu alayhi wa sallam feeñ nga xam ne mooy ndën gi mindeef tudd ahmad mel nga ni ku teewe xare badr nga xam ne ci bisu koor ci la amoon mu doonoon xare bu metti kon képp ku màggal guddi gi mel nga ni ku ko teewe